Mesdames et messieurs, bonjour. Le diagnostic du premier cas de la maladie dite du Covid-19 intervenu le 2 mars dernier et son rythme de progression avait conduit M. le Président de la République à prendre des mesures ci-après. La proclamation de l'état d'urgence, c'était le 23 mars 2020. La déclaration de couvre sur l'étendue du territoire national, à ma qualité de ministre de l'Intérieur, chargé de l'application des décisions présidentielles en ces matières, j'avais pris des actes subséquents afin de prévenir le rythme de progression de la maladie. Ainsi, la circulation interurbaine des personnes et des biens en toute heure et dans les circonscriptions de 20 heures à 6 heures avait été interdite. Il en est de même des manifestations ou rassemblements sur la voie publique dans les débits de boissons de toute nature, dans les marchés, les terrains de sport et lieux de culte, etc. L'obligation de port de masque a également complété ces dispositifs de prévention. Mon collègue ici présent, mise en charge des transports terrestres, avait en même temps prescrit des mesures de régulation dans le dispositif du transport. À la suite de l'habilitation accordée par le Parlement, M. le Président de la République a pris des mesures avec des décrets notamment de prorogation le 3 avril, 3 mai et 29 mai de l'état d'urgence. Lors de son discours du 11 mai, il avait pris des mesures d'assouplissement. Il s'est agi à cette occasion de porter les horaires de couvre-feu de 21h à 5h, de l'ouverture des marchés pour 6 jours, de la reprise du fonctionnement des louments, de la réouverture des lieux de culte avec respect des actes de prévention collective et individuelle,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 je vous remercie de votre aimable attention mbokk assalamu alaikum. Mangi nuyu ñëpp ni ñuy déglu mbas mi bi mu ci réew mi depuis le 2 mars président de la république daf ci jël ay mesures yu am solo benn bi bu ñëkk bi mo doon mu proclamer état d'urgence wax ne également nañ def couvre-feu manam téré génn beek doxantu bi bu 20 heures jotee ba 6 heures du matin man en tant que ministre de l'intérieur yenen mesure yëpp man mako don doon jël pour fexé ba loolu président bëgg muy rythme progression maladie bi bu mu gaaw bu fekkente mënuñu ko arrêté loolu mo taxone ñu tere woon lépp lu jëm ci manifestation wala rassemblement tere également ñuy jaay ci début de boisson yi ci marché yi ci terrain de sport yi ci euh, lieu de culture. manam fepp fi nga xam fi nit ñi dañ fa daan nekk di dajale di jaamu yàlla obligation également di takk masque bokkoon aussi ci mesure yi ñu jëloon suma collègue ministre des transports jëloon également ay mesures de jëm ci transport bi bi nga xamee ni assemblée nationale jox na président la loi d'habilitation manam mu jox possibilité mu jël ay ordonnance président defoon la prorogation état d'urgence bi le 3 avril le 3 mai ak le 29 mai moy bi ci muju bi nga xamee ni président waxna ak askan wi le 11 mai mu jëlone ay mesures pour ñu euh, oyofal restrictions yi nga xam yi defoon nañ ko ci bu ci mu ne nañ jël couvre-feu bi décalé ko ci ñaari waxtu yéegal ko 21 et une heures wàcce ko 6 5 heures du matin ñu ubbiwaat marché yi pour juróom-benn fan ci semaine bi mu ne woon aussi permettre na luuma yi ñu reprendre ko également bërëb bi ni ñi daan daje pour def seen di jaamu ñu prép ñu prép ñu ubbiwaat ko waaye respecter également mesures yi nga xam ne yi moom la war a ànd ak fonctionnement restaurant yi également mu ne woon nañ ci commencé déjà réfléchir waaye ñu respecter mesures barrières yi transport bi nga xam ne bii également mooy dem bi ak dikk bi euh, ñu xalaat ci déjà pour travailleurs yi nga xam ne dañuy dem ci àll bi pour préparer nawet bi décision yooyu nag président jëloon am na solo lool boobu ba léegi nag ñu ngi ciy xalaat di ci waxtaan acteurs yi moo tax bés ni tey danañ jël décision pour yombalal dem bi ak dikk bi maanaam tere biñ ci daan def ci réew mi yëpp danañ ko bàyyi nit ñi danañ mën a dem danañ mën a dikk waaye danañ yëkkati aussi couvre-feu bi léegi au lieu muy tàmbali vingt une heures vingt trois heures maanaam onze heures ci guddi lay tàmbali ba cinq heures du matin gare routière yi danañ reprendre pour transport urbain ak transport interurbain waaye gannaaw couvre-feu bi am na ba léegi am na waxtu boo xam ne bii ministre des transports dana ci waxtaan ak gare routière yi pour que surtout interurbain yi pour que ñu mën a tëj gare yi réunion yi nga xamné aussi tere nañ ko ci endroit public ak privé danañ ko reprendre restaurant yi également danañ reprendre euh, salle de sport yi aussi danañ permettre ci salle de sport yi nit ñi di def seen activité ci casino yi ñom aussi danañ am mesure d'assouplissement yi waaye danañ respecter également distanciation yi ak mesure d'hygiène yi gouvernement bi comme nous ko dalee def bo ba ni mi ngi

te it dañ yokk lenn bëgg nañ transport yi nga xam ne danañ koy reprendre rawatina transport interurbain bi oto bu ciy dugg bu ne ñu ñu booy départ ci gare routière def li ñuy wax manifeste manifeste mooy këyit bi wane ñu dugg ci oto bi euh, seen i contact ak fan lañu dem loolu dana mën a permettre bu liggéey bu fekkente ne dara xew na ñu mën a topp ñi nga xam ne ñooñu àndoon ci ci voyage boobule. gouvernement bi nag mi ngi mi ngi regretté li nga xam ne lii xew na ci ñaari fan yu mujj yi euh, muy manifestation yi nga xam ne Euh, ay ndaw pour euh, lever euh, malheureusement Sénégal vraiment mesure pour de l'intérieur. Vous avez parlé justement des manifestations et nous avons noté certaines manifestations à Touba, dans les villes comme Touba, Dakar et Tambacounda.